صلاة وصليا يا إله يا إله وجزيا أبدا واو أن محمدنا مختار في الدين وصليا يا إله إله وجزيا أبدا واو أن محمدنا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 وعلى آله وصحابته ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله بكي دارجي بكي دائرة بي نيوغلين دي نيو تدلين زيارة نيوغلين دي بالو أقيا نيب تدلين بالأقيا نيب di wax ni yal nañu yàlla buur bi boole baal ci barke sidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni dañoo bëggoon a dugg tuuti ci téere bi nga xam ni ñoo leen ko digoon muy xilaadu zahab fii siirati xayril arab bu suñu maam Seydil Xaaji Malik si radi radiallahu taala anhu ñu fas yéene ci wax li ñu ci xam ndax téere la boo xamante ni fa tabarakallahu li ci sunu maam Seydil Xaaji Malik dëxëñ ci xam-xam yaakaar naa ngay wax li nga xam rek bàyyi waaye li ci ne ci xam-xam mënoo ko wax ba jeexal ko kon ñu ngi fas yéene wax ci li nga xam ni moom lañ ci xam yal nañu yàlla defal dégg ak topp mu mel ni téere la boo xam ni day wax ci siira siira nag mooy jaar-jaari yonente bi sallallahu alayhi wa ak dundam mel nag bañ la ñuy dugg ci téere bi dineen xaw a waxtu wuuti ci ki nga xam ni mooy mu allif bi mooy ki nga xam ni moo taalif téere bi di seydi alhaji malik si radiallahu anhu di wax ni mu ngi tudd alhaji malik si mu ngi juddoo dëkk bu ñuy wax gaaya ci ñaari wajur yu sel ñaari wajur yu bax ci ñaari wajur yu yu ci ane bu ñuy wax 1853 mom la suñu maam Seydil haji malik gane aduna ci dekk bu ñuy wax gaaya 1853 mu ngi génn àdduna 1922 dëkk bu ñuy wax Tiwaawoon mu mel ni suñu maam Seydil Haaji Malick Sy moomu waajuram bu góor mooy maam si waa waajuram bu jigéen mu ngi tudd Fatimatu Wade Wele ñu gën koo xame ci maam Fa Wade Wele mu mel ni maam osmaan moomu li nga xam ni moo ko yóbbu woon fële ca euh, gaaya ba ci la yàlla sababe sababe juddoo Sidil Hadji Malick foofa sa gaaya suñu maam Ousmane dafa am benn téere bu mu bëggoon léegi ñu ñu yebal ko ci eh, gaaya ni que ni boo demee gaaya am na genn kilifa gu mag ko fa nekk gu ñuy wax Thierno Malick Sow boo demee man naa am xam naa dina am téere ba léegi ba mu demee nag moom maam Ousmane ba mu demee nag di fa lijjanti téere ba toogaale fa nag di di di di di gëstuwaale xam-xam ba far toog fa nag moom sunu maam ousmane di waajuru góor si si euh, sidi lhaj malik si demoon na mu retani uti ji ay téere tabarakallahu bi mu demee ba ñëw téere yi nga xam ne moom la uh, wuti ji woon doon ñu wax ni téere yii day ma am ci sama kàggu ne jamono ngi ñëw tuuti ci kanam ku ku ku ku ko amul man man man man man ousmane dinaa la raw waaw maam ousmane moom moo waxoon loolu waaye nag moom jot gisante ak Eh, domam di Sidil haji Malik, ndax dañu wax ni Sidil haji Malik, bi muy am ñetti wër ñetti wër ci biiru yaayam mom la suñu mam Ousmane mom genn aduna kon mom gisantewul ak papam mom Sidil haji Malik dafa eh, juddu maanaam eh, fe don jirim ni ni ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam defe da moom itam dafa ju dafa juddu fekk papaam génn àdduna ndax ba may am ñaari weer ci biiru yaayam amina moom itam ci la papaam génn àdduna abdullah mel ni ci tënk ak gàttal ah téere yooyu nga xam ni moom la suñu maam osmaan jële woon moratani ci la suñu maam sidil haaji malik dare jàng mel ni ki ko dalal jàng tamit ndijaayam la muy alfahima yoro wele di mbokk maam faa wàdd wele ñoo bokk ndey ak bàyyi alfahima yoro wele mii nag maam faa wàdd wele moom moo ko mag moo ko féete mag alfahima ay rewele mi nak dindi jaay ci sidil haji malik mom moko jangal euh, alquran ndax suñu usman da ñu wax naan sayati malikun tere bim deme mauritani bu ñew dan wax dan nan dan wax nan ni dan wax nan sayati malikun manam ki nga xamanteni mom moy borom tere mom dina ñew borom téere yi nag bi mu ñëwee tuddati Malick muy Seydil Hadji Malick ak la nga xam ni moom la suñu maam Omar Fuuti yu Taal waxoon ni leen am na koo xamante si nii dina fi ñëw di sàkku si euh, téere muy maam Ousmane moomu la doon wax bu ñëwee nangam nangam nangam nangam ni leen ni leen nag na ngeen fexe ba ba ba ba mayka maam maam faa wàddewele mii dina ci am benn sanga boo xamante si nii sama sama sama liggéey si tarixa bi lépp moom moo koy yeggale kooku mooy siidil siydil haaji malik si radiallahu taala anhu warda wanna bihi amin mu mel ni siidil haaji malik moomu li ma la wax léegi ni bi muy am ñetti weer ci biiru yaayam ci la papaam génn àdduna ndaka seydina muhammad sallallahu alayhi wa muy am ñaari weer ci biiru moom tam ci la papaam génn àdduna ndax sidil haji malik dafa am nurowale yoo xam ne da ko daf ko am ak ci ak yonente bi salallahu alayhi wa sallam boobu euh, bokk na ci nurowale yi nga xamante si nii am na ko ak yonente bi ndax yonente bi judd na doon jirim bi muy nekk ci biir yaayam tamit moom la papaam euh, génn génn génn àdduna yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ngi juddoo màkk mu ngi génn àdduna medina sidil haji malik si mu ngi juddo gaaya mais mu ngi genn aduna tiwaawon mu melni ni gogu non sax manam mom mom mom ñewul won pour tok fa pour dekk fa ay ñu bëggoon euh, mag ñu ñu bëggoon ku leen firil alquran ba bim ñewé ñu xol ko xamni ni wam set na te limay wax xam-xam bu leer nañ la ci leen ko fexé euh, fexé fexé ba utul ko fa kër ba ba ba ba ba mujj dëkk Tiwaawoon waaye moom Tiwaawoon ñëw fa woon pour pour pour pour dëkk si waaw Seydil Hadji Malick moom nag def téere boo xam ni yéem na kuy arab ak kudul arab ndax xam-xam bu bari boo xam ni ah, comme niñ ko waxe woon ah, dëxëñ na ko ci biir mm, xilaatu zahab mu melni ne zahab bobu tamit nak bi mu koy taalif du dafa amone ciobare ni rek jek jek wala sawar rek di bind dedet Sidi haji malik mu ko talife ci circonstance ndax dafa am ben talibe bu ñuy wax Ahmed Karim gay ñi ni Abdul Karim gay mom la doon jàngal téré bu ñuy wax xurratul absar xurratul absar bim koy jàngale téere bi ñëw ba aussi ci euh, bunta boo xam ne day wax yonente bi ñaata la amoon ci ay gàtt léegi mu jël benn gàtt nag jox ko mu jël mu jël ñaa euh, benn gàtt boo xamante si nii daa am ñaari tur mu jox ko euh, tur wu ne mu jox ko gàtt kon ñaari gàtt lay daal di doon Sidil Hadji Malick nag ca xam-xam baak modeste ga ndeysaan ak ak ak ak ak xam-xam bu bari ba di wax ni bi rawsatin duayat aw xaysatun yamanun shaatun lahu qamarun uddat fala tahimi nee na bi ñu ngi koy woowe xawsatu xawsa mooy firi xettalikat am na ñoo xam ne dañ koy woowe xaysatu xaysa nag xays firi taw waaw ndax soow moo xamante si nii bi bari bari woon nag ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam sallam moom la daan ëpp lu muy lu muy lu muy lu muy jëfandikoo ci gàtt boobu noonu mu ni nag ki nga xamante si ni mooy xor mooy boroom xorratul absar dafa wax ni rawsatu gàtt la ak xaysatu gàtt la mu ni déedéet bi xawsatin duayat aw xaysatun yamanun shaatun lahu qamarun oddat fala tahimi kon benn gàtt la boo xamante si nii dafa am ñaari tur booy déglu sax euh, suñu xalifa ba yal na yàlla yokk leeram ak njëggalam ak yërmaneem si barke Seydina Muhammad muy sëriñ Mansour si borom daara ji daañu wax naan mu ngi mel ni nga ni Mansour ni soora Mansour mooy soora Babacar Mbay Sàmba Bàcc roqe Daba non la gàtt bi demé won nak waaw motax Sidil Hadj malik nak wax bayit bi bi xawsatin duayat aw xaysatun yamanun shatun lahu qamarun addat fala tahimi muñi biñ ko bim ko waxe sax amna ñu ni waxaat ne yeneen abiyaat ci ginnaawam doora wax alhamdulilahi zil ijaadi wal qadami mumidina bi wujudil badri sil qadami waye li gëna wér dal moy Euh, circonstance moo tax euh, suñu maam Seydil Hadji malik bind xilaas zohab bii nii mu nekk tamit téere boo xamante si nii bu yéemee yéemee yéemee yéemee yéemee yéeme la ndax yéeme géeg xam-xam bu bari bi lépp euh, suñu maam Seydil Hadji Malick mu ngi ko ci ñaar fukki fan ak benn am na ñu wax sax ni yées na loolu noonu yées na ñaar fukki fan ak benn waaw nekk junni bayit ak juróom fukk ak juróom am ñu ni junniy bayit ak ak ak juróom benn fukk ak ñaar am na tamit ñoo xamante si ni ah, wax na wax nañ loolu noonu ci ci ci ci ci ci firim ah, ci xilaasu bi maanaam abiyaat yi am na ñoo xam ne wax nañ junni ak juróom fukk ak juróom ñii wax junni ak juróom benn fukk ak ak ak ñaar waaye li wér te li wér te daal mooy euh, xilaas dafa nekk téere boo xamante ni bunta bu ci ne walla bayit benn bu ci ne Seydil Hadji Malick maanaam euh, tënk na tënkin woo xamante si ni bayit bu ci ne rek daanaka mën nga cee def téere waaw kenn ku ci ne nag ak ak ak ni nga xam ni noonu nga ko dégg waaw ñun nag dañuy dañuy dañuy dañuy daal di mm, jéem a yem foofu mm, ci gàttal ñu doon wax kan mooy Seydil Hadji Malick ñan ñooy ay waajuram na ba bu ko defee bu ëllëgeek ci biir ak jàmm ak salaam incha allah dimanche ak jàmm ñu def nag mm, daal jéem a dugg nag ci euh, bunt bu njëkk bi incha allah bu ko defee ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xamante si nii moom moom lañ ci yéene muy luñ ci xam muy néew ko bëri ñu bokk ko partagé ak ak mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi di wax ni suñu yéene mooy maanaam xamle liñ ci xam lépp ñu xamle ko ci incha allah waaw ndax dañuy jéggalu ci benn côté ci nii xilaat zahab bi am na ñoo xam ne ñu ngi ñuy dégg ñoonu ko gën a dégg fuuf ñoonu ko gën a xam fuuf ñoo nu ko gën a maîtriser tamit kon nag kooku bu la dee déglu wax dëgg yàlla mm, te waxula la ni leen def nga nii def nga nii def nga nii kon nag loolu ak sant yàlla rek moom nga moom moom nga moom nga ko war a def ak sant yàlla moom nga ko war a def te xam ni lépp loo xamante si nii ma def nañ ko ci muy loo xam ne lu jubla nañu xam ni ci mbax ak yàlla la lépp lo xamante si ni def nañ ko ci muy muy muy muy sofane nañ xamni du du won suñu waye mata dig doomu aduma la waaw ko defé dañ xam naan dañuy tek fofu suñ loxo ba dimanche ak jàmm ak salam insha allah bu ko defé ñu dal di len commencer nak ci bop bi insha allah alhamdulillahi zil ijaadi wal qidami mu middinaa bi wujudil badari sil qadami summa salaatu wa taslimun yafuuqu ala miskin wa randin ala zil fadli wal qadami bu defee mbokk jullit yi ñu ngi teg foofu suñ baaraam di leen wax in uridu ila al islah mastataatu wa ma tawfiqiya ila billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh وصليا يا إلهي وجزيا أبدا واو أن محمدنا مختار في الدين أصليا يا إلهي وجزيا أبدا واو أن محمدنا مختار في القدم